tuddee ko fee dane waaw am na sax ñu wax ne lu tax ñu naan fee dane mais loolu yomb na lay atum jullit yi la ku ne xam ne ne jullit yi amuñu woon at bu ñuy référé woon loolu amuñu ko woon nan la ñu daan def mooy dañu daan tënku rek ci hijratu rasul maanaam gàddaayu yonent bi sax ma jëlee ko ci kaw gis nga arab yi bu njëkk comme ça ni ñuy amee mille neuf cent mille huit cent mille sept cent deux mille loolu arab yi amuñu ko woon lan la ñu daan def dañu daan référé ci at mi gën fës ci biir at mi actualité bi gën a fës moom la ñu tuddee at mi te loolu suñu mag yi loolu la ñu daan def parce que xamuñu woon bind ci nga daan dégg ñu naan la atu ñay yi ñu naan la fii atu njéeréer yi ñoom daal at mu ñëw la ci gën a fës ci misaal bu doon ci jamono bii la bu mag ñi daan wax atu njéeréer yi boobu jamono dañu dem ba nawet bi di waaj a jeex njéeréer yi ñëw fees dell dëkk bi at moomu dañ koy tuddee atu njéeréer at mi yonent bi julli ci la Abraha demale ko woon ay ñey yu bëri ñëw di toj si kaaba gi at moomu ñu tuddee ko atu ñey yi ba téere taarix yi ngay jàng yépp ci yonent bi bu lay nettali histoire danaan la yonent bi mi ngi judd amul fiil atum ñey mais duna la mille tel tel tel ci atu ñey yi la judd ginnaaw atu ñey ba benn at ginnaaw atu ñay ñaari at ginnaaw atu ñey ñoom ci at yi lan daan sukkandiku ci biir at mi ci xew-xew ba rek ah, bu doon ci jamono batalo joola ñu ne atum batalo joola bu doon jamono atum bétanti ñu ne ca atum bétanti ma ñoom noonu la ñu daan sampe ay repère mais loolu dëgërul parce que dafa gaaw a daanu arab yëpp noonu la ñu daan def di sukkandiku ci amul fiil moo tax ñu naan la yonent mu ngi judd amul fiil xew-xew yi ñu toppatu nga juróomi at ginnaaw juddu juróomi at ginnaaw amul fiil bi mu demee ba yonent bi gàddaay jógee màkkatal mukarram dem na war ci la jullit yi retiré wu waat nag génn ci calendrier boobu dal di wut seen calendrier bop moy lan moy ginnaw gadda yonenti bi di wax ne atum gadda gi di wax ne legi ben at ginnaw gadda gi ñaarelu at ginnaw gadda gi ñettelu at ginnaw gadda gi way duñ bint duñu yaxal ci loolu lañu daan jël di sukkandiku ba yegg ci 17e année ginnaw gadda gi nag ci la ci la tombé nguur sayidina Omar parce que mom nguur la yoron mom mo defar nak benen calendrier bu bes pour ñu daté yawma ma yau ma ashura wala boog bésu muharram weeru muharram bi mu nekk atu jullit yi nag léegi mu nekk lu ñuy bind nag commencé nag di bind un deux trois jëm fu ñu kan xamul waaye foog ñu sukk ko ci benn at mooy atu gàddaay gi la ñuy jël ñu référé wu nee na Seydina Omar radiyallahu anhu ku ne xam ne ne état la yoroon nekk président de la république ci ni ñu ko mën a tuddee ci jamono euh, woo jullit yi ñu fexe ba muy jaar ci ay këyit ak i bind benn bés mu namee woon benn gouverneur bu tudd abu moussa al ashari ca basra léegi mu bind benn décret yónnee ko ko def weer wi mu ko soxla mu nekk weeru chaabaan chaabaan mooy baraxlu ci wolof avant weeru koor bi abu musa recevoir lettre bi ba pare liir ko gis na chaabaan la def abu musa am problème na omar jox nañu décret waaye dafa wax rek ne chaabaan lay doon léegi nag xamuñu chaabaan bii passé la wàcce wala chaabaan bii di ñëw la affaire bi di jeex ban la ci est-ce que daf ñu bëgg wax ne Chaabaan bii passé la affaire bi jeex wala daf ñu bëgg wax ne Chaabaan bii di ñëw la loolu problème la mu bindaat lettre bi tontuwaat Seydina Omar ne ko ah danga nga ñëw bindaat Chaabaan rek te amul at bu fixe bu ñuy wane ne bu daaw la wala bu ren wala bu déwén la wala bu ren la waa koy Seydina Omar ne ah wax nga dëgg loolu mbir la moom boroom xel la woon mu woo saxaaba yëpp nag ne leen ah benn problème a ngi nii solution rek laa bëgg nag dajale saxaaba yi yëpp ne leen kaay leen ñu xalaat nag. nan la ñuy def ba ut benn calendrier boo xam ne dañ ci jël di sukkandiku ba lépp lu ñuy bind bindati ñu xam ne at sàngam la doon saxaaba yëpp commencé nag di joxe seen xalaat di gëstu di ballal ci ban xew-xew lañ ko war a sukk waaw naka la ñuy def ñii ne waay nañu jël at bi yonent bi juddu mu nekk suñu at boo xam ne ci lañuy tàmbalee compter comme di daal yonent yàlla Isa ñii ne ah déedéet ñun daal gis nañu nañu jël at bi ko yàlla yónni ñii ne ah déedéet nañu jël at bi mu faatu. Seydina Aliyun karamallahu wajha moom moo ne man daal gis naa ñu jël at bi mu gàddaayee parce que ci la l'islam am liberté ci la l'islam dooru juddu ci la état islam door a taxaw parce que Màkka dañ fa nekkoon rek mais existé wuñu daanaka Seydina Omar rafetlu xalaat ba lool te yeneen kutubu siire yi nee nañu sax yonent bi bi mu ñëwee ci Seydina Aliyun ca bi mu gàddaayee ba noppi ba Aliyun fekk ka Madina moo ne ko taarixal ma bis boobu bind ka nga yaxal ka ñu bañ ko fàtte waaye taxawul continué wul nag amul beneen yaatuwaay bu ñu ci defaat nee na loolu moo waral Seydina Omar rafetlu lool xalaatu Seydina Aliyin saxaaba yëpp rafetlu ko ne effectivement ci la l'islam moom boppam ñu daal di yaxal nag ne kon nag léegi ne ñu jël hijriya maanaam gàddaayu yonent bi mu nekk suñu sukkandikukaay ci konte at dañuy wax ne bii bi yonent bi gàddaayee ak léegi moo tax diine bu ñu naan la 1439 la ñu am boolewuñ ci ba mu juddoo boolewuñ ñu koy door a yónni jiitinu loolu fi mu gàddaayee rek la ñu jël waaye bàyyi nañu daanaka lu ma 10 ans 11 ans ci ginnaaw bu 12 ans bàyyi nañ ko ci ginnaaw loo xam ne euh, ëpp na lii ñuy compter tey waaye comme ñoom foofu lañ bëgg mu dooree foofu lañ ko dooree loolu Seydina Omar def diisoo ci ak ñoom kon keneen kuy mbubboo Seydina Aliyun di wax ne deewu doomam moo tax ñu di ko def wax dëgg yàlla da nga bëgg a jaxase nit ñi rek waaye deewu Xuseyn taxul kenn di féete tam xarit te bu fekkee Xuseyn dee gim ci dee moo tax bésu naqar la war a doon kenn waratu ko tam waaye nanu bàyyi tabaski parce que ci la doomu ku gën Ousseynou dee muy doomu yonti yàlla Muhammad maam Ibrahima alayhi salaam doomu yonent bi la bésu tabaski la génn àddina est-ce que tax na ñu def ko dëj kenn mësu ko def dëj bu ñëwee duñu ko fàttali sax parce que dëj kenn du ko defal anniversaire bi ñu demee ba àddina tukki rek àddina yàqu jamono yàqu ñu amatuñu pas-pas mënatuñoo jaamu yàlla ci la ñuy feete ay dëj dëj kenn du ko feete feeteel juddu yi sax bokk mais ab dëj nga xam ne naqar la loo ciy fàttali yow koy fàttalil bésu cant ga bésu judd ba bésu bànneex ba bésu leneen waaye bésu faatu daal ëpp na defal anniversaire ëpp naa fàttali di ko def dëj comme ni ko ñëpp di defee ko noonu yeneen bi di dëjal maam Ibrahim tabaski gu ne te defu ko ñi ñëw ci ginnaawam nag di dëjal Xuseyna war na nañu wax fan la ñu war a jàngee ci na fu ñuy dëjalee fu ñuy dëjalee nit ilal abat te loolu boobu logique boo ko toppee dootoo bànneexu benn bés parce que bés yëpp am na ko ci génn àddina nag su defee loolu moo tax waaye du woon mukk féete bésu seen xuseynu ak deewam loolu duñu ko féete benn yoon ñu taxaw ci nag léegi nag mu desaat lan moo tax ñu taamu muharram est-ce que ci la yonent bi gàddaay ñu ne mais muharram dafa bëri possibilité yi nekk ci tamxarit moo tax ñu jël ko mooy tamxarit naka jekk arab yi moom la ñu defoon mu nekk seen début d'année avant dara parce que ñoom daan nañu aj dañoo bokkul aj rek mais dañu daan aji màkk comme nii te weer bii ñuy aj ñoom ci la ñu daan aj donte commerce ba moo ci ëppoon nag comme nekkoon na début d'année ba pare nous xam nañ ko ñu ne nañ ko reprendre rek benn yoon ñaareel bi ci des ci lay fekk jullit yëpp aj si màkk ba noppi fu àddina bi ne fu jullit ne ci àddina rek di nga si aj màkk donte benn jullit la ñu yëg ne weer wi nii aj mooy weer wi mujj ci at ku aji ba ñëw rek weer wi ngay mooy sa début d'année muy nous tam xarit sens pour ñu mën a ne atu yi dara gënul porté muharram parce que day fekk ñu jeexal koor jeexal aj makka jeexal tabaski nag war a dugaat ci muharram ñu tàmbali ko mu nekk at mu bees li tax mu tudd muharram mooy yàlla dafa ormaal weer wi da daan tere sax ñu xeex ci donte moom ak yeneen ñetti weer yoo xam ne kenn daawu ci xeex ndax yàlla daf ka ormaal kon du hasard jullit yi tànn ko pour mu nekk seen weer léegi nag lan moo tax ñu tànn fukkeel bi lu tax defuñu ko sedd bi ba nga xam ne tey daanaka ñu ngi ci juróom fan Euh, lu tax defuñ ko ca njëlbeen nga loolu moom amul benn problème mais ñi xàmmee tey def ci wàllu ñaan xam nañ ne mag ñi daanuñu def njëlbeenu bés ba am na xeeti ñaan yu ñu cay def buñ demee ba fukkeelu fan ba am na xeeti ñaan yu ñu cay def kantaan ni ñu jagelee bésu fukkeel bi woor loolu moom ca yonent bi la commencé jotewul dara ak euh, début d'année bi waaye bu ñu ñëwee ca bés booba ñu yëg ne bésu ñaan la bésu woor la bés bu ñu fonk la ci jaamu yàlla bés la boo xam ne bari na yonent bari na nitu yàlla yu ci nekkoon ci jafe-jafe yàlla li leen ci bés boobu ci ñaan gu nangu ñu ne bés boobu buñ ca yeggee nañ dekkalaat loolu waaye tekkiwul ne mooy début d'année bi tekkiwul ne mooy fin bi commencé nañu at mi fukkeelu bés ba dafa nekk bés bu am solo buñ ca yeggee ñu woor ko def ca ay ñaan rek loolu la far mu tombe génn àdduna ren nag waaye loolu moom ñun feete wuñu ko ngir loolu loolu moo tax bés boobu ñu daan ko jël di ko def ay ñaan di ci def ay fàttaliku di ci fàttali nitu yàlla yu baax yi di ci fàttali jafeñ-jafeñ yi amoon ñaan yàlla mu teggil ñu lépp ñaan yàlla mu def ñu dëgg-dëgg jullit ñu ngi jégalu nag ci guddal gi bu baax a baax a baax loolu dañu amoon yéene leeral ko moo tax mu xaw a jël temps boobu ñaan it bu ñu kenn fàtt ci ñaan te ñu bañ a fàttante ñaan yàlla jafeñ-jafeñ yëpp yàlla na ko yàlla teggi feebar yeeg tawat yeeg yëpp yàlla na ko yàlla teggi naqar yeeg tiis yeeg yëpp yàlla na ko yàlla teggi way génn àddina yi yàlla na leen yàlla yërëm ci barke yeneen sallallahu alayhi wa sallam ñun nag niñ ko daan defee dinañ ko def bu dimal nañu yàlla nangul te yéene ci jàmm rek nag waaw ñaanal yàlla réew mi def fi jàmm ñaan Birmanie yàlla def fa jàmm ñaan réewu jullit yëpp yàlla def fa jàmm def ko ci àddina bi yëpp nag incha allah ay wii di niit ci diggante Amérique ak euh, Corée di Nord yàlla ba mu tàkk dinañu fa rek ba taal àddina bi ci ay yu ñàkk fayda te nit ñaa ngi toog daanaka wuñ ko xel sax mais ñaari nit yoo xam ne kenn ku ci ne ñu ngi lay jiiñ ne yor nga arme yoo xam ne mën nga tukkal àddina te ñoom ñaar fii mu nekk nii ñu ngi sànnante ay flèche ku nekk di jiiñ sa morom naan danga nga dof ku nekk di wan ne maa la gën a dof bés bu ne ñu ngi menacante ak di essayer ay bomb te àddina yëpp ngi toog di seetaan fii la ñuy xëy rek ñu ne tépp def lu kenn mus a gis mais yal na yàlla freiné seen ay te dëppal leen foofu ba nu yem fa yal ñu yàlla dimbali wasalaamualeykum